Toujours dans votre acte du jour de ce 11 octobre 2024 ginnaaw Amendoy, Ndoye dama bëgg ñu déglu l'activiste Assane Diouf le républicain ginnaaw Momit, Indina na ay kàddoom jëmale ko ci prochain élection législative yi lan la ñu pour soppi Pili, nga xamante Sénégal indi équilibre ba nga xamante ne di nouveau régime bi Fep fu ñu teg seen tànk fu baax ñu gunge leen fépp fu ñu fu baax fu bon ñu di pour que askan bi gis seen bopp nañ déglu Assane Diouf. sàmm sa kàddu sama gars yi assemblée nationale moom Ousmane Sonko moom moo taxawoon ne waruñu ko jox président bi nekk au pouvoir pour muy néewal askanam doole Sénégal vaar sàmm sa kàddu Sénégal benn problème rek lañu am mooy sàmm suñuy kàddu mooy sàmmi suñuy waxi démb moo tax ñun ñu ne vaar sàmm sa kàddu usmaan Sonko yow yaa taxawoon ne soxlawu leen assemblée nguur soxlawul assemblée national pour liggéey liggéey yi mu waral liggéeyal am réewam yow yaa taxawoon di wax ci lu jëm ci démocratie ni mu war a taxawee Ousmane guddi xawma bëccëg ba ñu toogee siège u Déthié ngay wax loolu yéen ñi nga xamante ni ku wax nag ngeen génn def seeni manipulation di saaga man maa toogoon ci ginnaaw Ousmane ko bi muy lim ba lim France lim leneen ni man ci ginnaawam man maa def ni sama loxo ne ko même états uni maanaam congrès bi walla Sénat bi manam opposition de koy contrôler pour askan bi mën am liñu bu président bëggee def luddul assemblée bi taxaw ne li duñ ko ko nangul te lolu moy démocratie Sénégal digé yi dafa bari won lool digon nañ leen fi ay accident yu dul continuer digon nañ leen fi dund guñuy dem ba dañuy wër di ko digoon nañ leen fi wax fi sax ne suñu pétrole ak suñu gaz ñu ngi koy jaay te première barigo yi ñoom ñoo ko ŋacclu digoon nañ leen fi ne leen justice bu jaar yoon tey ñu ngi jàpp ay nit di leen trake ndax lenn kese dem leen ngeen xool vaar sàmm sa kàddu ngeen xool ñi ñuy jàpp ñan lañu mooy ñi doon opposé wu mais ñi sàcc dëgg kenn laalu leen Sénégal tey ñi ngi indi ay scandale yoo xamante ni ñoom ci seen nguur la am Sénégal man dey dara ñoruma lu dul kiy liggéeyal Sénégal dara ñoruma mooy lu dul kii kon ñoo ko gisandoo muy kàddu Assane Diouf l'activiste républicain bañ na ko ba sol t-shirt am tuddee ko VAR nee na ñëpp a voté VAR kan moom moom VAR nag xool leen ki fi waxoon ay waxi démb te saa yu waxee ñi indi VAR daal di koy tegal VAR dem ba sonal ko ñu bëgg a instrumentaliser justice pour teg ko ñi nga xamante ne ñooy wax VAR kon nee na sàmm sa kàddu yaakaar naa ni. alxuraan ci boppam moo njëkk ne sàmm sa kàddu yàlla bu ñu sàkk ne góor dafa war a sàmm kàddoom kon am na ñoo xamante nag sàmmuñu seen kàddu ba tey jii ñu toog fii te yéen leen jox pouvoir bi tax tey ñu toog fii ginnaaw bi ñu diggee ak yéen ay kàddu ngeen gëm leen ci kàddu yi ñu ñëw ba egg si au waroog seen ay kàddu kon nit ñi nañu voté sàmm sa kàddu lan mooy sàmm sa kàddu nag mooy moom mi fi nekk tey ci boppu réew mi moo taxawoon ne jox leen majorité bi ki nga xamante ne mooy opposition pour que ñu mën a saytu doxalinu lii nga xamante ne mooy gouvernement kon gor ca wax ja sàmmal sa kàddu kon na ñëpp jóg daal di voté lii nga xamante ne mooy sàmmal sa kàddu muy coalition VAR VAR nag képp kuñ ko tagara jàppal ni que li nga waxoon démb ak li nga wax tey dafa wuute te nit nag war naa jombale di wax li nga xamante ne dafa safaan ak dëgg tey si suba damay seetaan seen TV dégg oustaz bi waalaate lu am solo solo ne benn waay dafa nekkoon ci dëkk bi bu mu nekkee ci dëkk bi mais du woon jullit mu jékki-jékki ñëw ci yonente bi seydinaa sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat bëgg a tuub dugg ci diine lislaam yonente bi ne ko macha allah loolu koy baax na mu ne waaye mais man damay naan sàngara mu ne ko damay naan sàngara te damay sàcc yonente bi mu ne ko da ngay naan sàngara te da sàcc mu ne ko waaw mu ne ko te mënoo ko bàyyi mu ne ma mënuma ko bàyyi yonent bi ne ko ne de ku bëgg a dugg ci diine bi de tànk doo fen tànk doo fen rek mën ngaa dugg ci diine bi mu ne koo ko noo bàyyi sàngara mu ne ko d'accord mu ne ko mën nga bàyyi fen mu ne ko waaw fen mën naa ko bàyyi mu ne mënul bàyyi sàngara mënul bàyyi sàcc mais mën na bàyyi fen nee na mën na bàyyi fen léegi yonent bi nag ah su dee dee mën nga bàyyi fen te mënoo bàyyi sàngara bisimilah duggal moom ci boppam moo yar boppam nee na man mën naa bàyyi fen donc dinaa dugg ci yéen mais tey su ma demee làqatu naan sàngara ñi ñëw ñu ne ma danga naan sàngara ma ne du dëgg naanuma sàngara su boobaa fen na parce que wax naa lu dul dëgg kon damay bàyyi sàngara parce que fen baaxul mu ne ko su ma demee sàcc ji ma ñëw ñu ne ma yaa sàcc lii mën na leen du man te man ma xam ne ni ko man maa ko sàcc kon wax naa lu dul dëgg fen naa kon mën naa bàyyi sàcc kon ci loolu la jaar bàyyi sàngara bàyyi lii nga xamante ni mooy sàcc ndax la fen باخوت الكذب في ميزاقي يالا موكو وخ تي القران جوليت دو فن جولي دو فن جوليت دو فن كون نيت سو ديمي باغا خامتيني ماغوم جيم تاخاو دي وخ ليغا خامتيني مونو كو ديف الهغ كبير نك سام سا كادو دا فا ام سولو كون ناني ديغلو كونساي اسان جوف نداختي سام سا كادو لو ام سولو سنغالي بو نيك mi ngi ak les réalités ndax xamna ni tay ndax ñi leen diggoon ni que ñoom danañu soppi réew mi soppi nañ ko wala soppiwuñu ko ñi leen diggoon dinañ wañi dund bi wañi nañ ko wala wàññiwuñu ko ñu diggoon ni dañu yok xey ndaw yi yok nañ ko wala yokkuñu ko ñu diggoon ni ko suñu excès fi au pouvoir kep kuy chômeur lu mu dédé dee bu dé di nga am 150000 am nga ko wala amoko su xamal liñ la waxon defuñu ko kon ñoñu sàmmuñu sen kàddu donc à chaque sénégalais de prendre ses responsabilités le 17 novembre jëmale ko daal ci li nga xam un Sénégal transparent un Sénégal développé et un Sénégal boo xamante ni maanaam day naat.